man mii di waxanteeg yéen def naa fukki weer ak ñett ci kaso bi bi ñu saaga yonent bi sallallahu alayhi wa fukki weer ak ñett yoo xamante ne dañu ma beroon traduire ma chambre criminelle pour des actes que je n'avais pas commis ba pare bàyyi ma sans procès jusqu'à présent moo tax je ne peux pas faire confiance à cette justice de mon pays man mii di waxanteeg yéen jàll naa parrainage ci élection législative yi dès le premier tour tey jii pour m'écarter de cette élection waxuma sax yeneen yi xew nga xamante ne tey jii su may tukki je suis obligé woo huissier pour mu constater samay bagage ni ma ko defaree balaa ma koy àmbale donc yóbbu su ma egsee ci aéroport bi aussi je suis obligé ñu jàlle ma ci ay procédures yu dul jeex balaa mu fay génn bi ma réussir parrainage bi en deux mille euh, deux mille vingt trois deux mille vingt deux li tax amuma député aussi c'est que ils ont voulu récupérer su ma amoon député bi ñu récupérer ko boole ko ci Benno ce que j'ai refusé catégoriquement beneen bi mooy écarté ma ci élection yi li ñu ko defee ils l'ont fait de manière vicieuse maanaam wax ne am naa vingt sept mille yu baax am na dix mille parrains doublons externes mais am na vingt sept mille yoo xamante ni non identifié lañu parce que suñu defoon nekk dama am vingt mille sax yoo xamante ne doublon externe la dina ma permettre ma dem corriger mais bu ñu defee non identifié vingt mille yi te ni ñu def ñoom Cheikh Tidiane Gadio noonu lañu ma def man tamit maanaam jël 1976 ku ci juddu woon def ko 1977 li am solo mooy analyser au-delà même des experts en informatique naka la la ñu defee machine bi kan moo ko contrôler derrière ça important machine bi nga xamante ne moo ne conseil constitutionnel dafa mel dafa ko link ak beneen machine beneen bi for naa ci wewu béy que ñi nga xamante ne ñoo doon contrôler le parrainage changé nañu équipe bi deux fois foraat naa ci wewu béy nekk que conseil constitutionnel ak la direction des élections fan yi nekkuñu ci jàmm ndax réeroo bu mag bi am en interne au plus haut sommet de l'administration sénégalaise bi ci des mooy élection yi ñu jëm su fekkee ne ci condition yi la ñu ci jëmee li Cheikh Tidiane Gadio docteur Cheikh Tidiane Gadio wax léegi mën naa jur lu raw sax li fi xewoon ci 23 février bay passé parce que simplement les tensions sociales sont partout ci réew mi amul hypocrisie ce qu'il faut faire aujourd'hui c'est que les gens compren que kii ñu dénk réew mi ak ñi nga xamante ne ñoom la àndal seeni bëgg-bëgg dafa waroo ak ni àdduna di doxe yàlla dëgg la bëgg la ca topp mooy waxtaan bii ñu amal tey jii ak lii ñu ñu soumettre pour signer ko li ci ëpp solo tey jii mooy kenn waratul teggi tànkam ci fii ñu jëm il faut imposer à Macky Sall qu'il est urgent aujourd'hui moom ak son régime urgent mu comprendre que yi mu teg askan bi diis na diisaay boo xamante ne teggi ko jot na su fekkee ne nit yaa ngi am tuuti yërmande buy dox ci yow beneen ba ca topp su fekkee ne il s'entête maintenant à aller à cette consultation je, je lance un appel solennel ñi nekkoon candidat la société civile ñépp dañu war a jóg taxaw jamono ji pour imposer à Macky Sall une nouvelle alternance pour construire comme l'a dit tantôt euh, suñu xarit une troisième république ce qui est fondamental fi may daanelee mooy crise bi la dénonciation bi nga xamante ne candidats yi ñu koy tàmbali defante seen biir dama yaakaar ne dafa waroon nekk une prise en charge de nos juridictions et non des candidats parce que ñi ngi jëm ci ay tiñalante ci ay waxante yu ñaaw alors que nos juridictions ñoo waroon encadrer def seeni enquête bopp pour trouver ñi nga xamante ne waruñu bokk wala ñu am ay double nationalité ñoom ñoo ko waroon def mais non pas les candidats gis nañu démb li xew ñi ngi ñi ngi réeroo seen biir ci ñu jëm ci élection et élection ne pas le fait d'appeler les Sénégalais à devenir des ennemis pour man c'est important donc maa ngi santaat encore bu baax euh, cette plateforme jóg ngir Sénégal di remercier euh, notre cher ami et frère Baba Wane ak toutes tous les membres de ce de ce collectif di leen wax ne initiative bi du tey nga ko tàmbale toujours yaa ngi jóg ngir Sénégal bu ëllëg di lancer aussi un appel solennel à ce régime en place pour wax ne nos prisons soo saturées man def naa treize mois de prison et j'ai compris comment les gens souffrent à l'intérieur de nos prisons détenus politiques yi nekk ci biir ñi nekk candidat ak ñi nga xamante ni opinion mu leen fa dugal jot na président Macky ak ñi mu àndal teggi seen tànk ci li xew maa ngi sant ñépp di leen gërëm alxaqu min rabbikum fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu